mbégte teewaat bi ci ndimbalu sunu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax euh, di ànd ak yéen ci trente minutes euh, chrono di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di nuyu tamit euh, waa solution TV waa solution info TV groupe solution Sanjogu bu ñu ngi koy jaale ah Sonybu ay mbokkam ca Touba di nuyu Modou Diouf Top Ablaye ah. Euh, suka maa jigéen di nuy ñëpp di leen ziar di nuy Aïcha ñoom euh, Kanjeeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu euh, teewaat fii nag fa yéene waxtaan yi actualité ci diiru ko fanweeri minute ñu fas yéene waxtaan waxtaan wi nag tey jii waxtu yi ñuy waxee ca assemblée nationale ñu ngi naan Karim. xalifa na lay def ba dugal leen li jëm ci code pénal code de procédure pénale wala code électoral lu ne ñu ngi koy wax ci assemblée nationale. assemblée nationale boobu la nag ñu war a dugal kii di Karim Wade ak xalifa Ababacar Sall am ñu ne euh, complot la contre Ousmane Sonko am ñu commencé di wax naan danoo war a yóbbaale Ousmane Sonko ci looli le maanaam fépp fu ñu maye xalifa mu doon candidat wala ñu may fa Karim mu doon candidat wala keneen ak keneen Sonko dafa war a nekk candidat pour man baatu may boobu sax moo garaaw la fait que ñu jàpp ni Macky sàll ak nguuram ñoo war di maye ki war a doon candidat ak ko warul doon ci démocratie boo xam ne def nañ code consensuel 92. ñu xool ci en 78 bi ñuy def fa PDS parti de contribution pour mën a yaatul suñu démocratie ñu dem ba egg ci jàkka jàng ku mën a nodd noddal ku bëgg a nodd noddal Abdou Diouf tegoon ko fi te pourtant boobu socialiste yi ñoo fi nekkoon ñu demoon ci jamono boo xam ne en 2001 bi Abdoulaye Wade jëlee réew mi assemblée nationale bu deful woon nànk benn groupe parlementaire moo fay am mais Abdoulaye Wade fexe na ba ñaari wujjam yi di PS ak PDS. wala bokk AFP am groupe parlementaire ci jamono boobu en mille 2001 Abdoulaye wàdd bu ko neexoon moom rek mooy nekk ca assemblée nationale moom ak benn partie mais dafa fexe ba ñu doon wujjeek moom ci politique sax doon ay opposants am lii di groupe parlementaire kooku mooy démocrate kooku am na fu mu fekk sunu réew ci wàllu démocratie mais am fu mu ko yóbbu même transhumance parlementaire député jógee ci parti dem ci parti sax Abdoulaye Wade bu mu ñëw da ko xeex parce boobu buggul néewal doole opposition parce que li ko waa PS doon teg la doon bañ a teg ñu nekkoon ci opposition bu senegal ñu dem ba ci biir élection ginnaaw Abdou Diouf ci jamono Abdou Diouf dañuy il faut ñu rappeler tuuti mooy ay Mbaye Niang ay Serigne Ousseynou Fall amoon na benn sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall bi nekkoon candidat parce que loolu li muy indi ay maram woon lii xam na ñooñu dañ daan dem élection mais nga gëm ni ñii duñ ko gagné moo tax tax ni nga daan dégg ñu naan zéro zéro mais teewul da daan neexal démocratie bi parce que da daan permettre sénégalais ñu am ay choix choix tànn sa bu la neex boobu mais bu ñu demee ba Macky Sall war ñu tànnal kan mooy dem candidat ak ak kan mooy dem élection ak ko warul doon maanaam dellu ginnaaw la boo xam ne loolu beneen mbir la. mun na nag def parrainage di filtre parrainage daa sa am Sénégal Youssou Ndour mais parrainage ko daaneel en 2012 Youssou Ndour candidat la woon lu may lu tax bokkul parce que nombre de parrain yi ñu doon laaj en tant que indépendant amu ko woon moom ak kebaa kenn kon parrainage yàgg na fi ñu bari doonoo jàpp ni Macky Sall moo fi indi parrainage mais xeetu parrainage bi mu fi indi xeetu parrainage boobu la kenn xamul mu doon. ba tey jii mu doon ak filtre boo xam ne tey jii te loolu lépp bokk na ci ñoom nguuram ñi ko indi parce que en 2017 bi ñu dem législative 47 listes lan am mais liste yi bari na ci liste yoo xam ne kan ma leen parrainé woon benn sëñ Mbacke Ndiaye bi élection yi jeexee dafa ne même man bu ma gañul baax na mais ñi ma àndoo leen gañe nan te pourtant amoon na liste kon tey situation bi ñuy dund tey jii est-ce que mën ñu ko dundaat en 2024 parce que bu dee ni Macky Sall xelam da ci ne ni man duma lekk ci cere ji mais mun naa ci xëpp suuf comme bokkatul léegi nan sorxo sorko géew bi parce que 30 millions pour caution ñu génnee cutis si fiscale yi mais tey ji ku ma neex mun nga bokk te tey ji filtre bi changé na parce que bu ne léegi élus locaux yi ak ñi di parlementaires yi mën nañ parrainer mais tey ji ku mel ne Pastef amatul problème parrain jarul sax ñuy wàcc ci terrain bi di parrainer bu dee moom mii partem di APR amatul problème parrain ak waa Benno yi mais ak ñeneen ak ñeneen ba ci waa PDS yi mais parti mbocc yi nekk ci suuf ñooñu ñoo nar a am problème boobu kon filtre bi dina am mais dafa mel ne néew doole tooñ la maanaam ñi fexe ba amuñu ay élus locaux ci maire yi ñi fexe ba amuñu député yu doy ñooñ ñoo nar a sonn ci lii loolu tax il faut am mig mag politique ci li xew nii kon loolu il faut ñu bàyyi ci xel pour man nag foofu nag le perdant mooy Idrissa Seck parce que sa Seck dafa demoon fekki waa Bennoo ci législative ak lii di local mais la la ko jural Idriss sekk bu ma jumul benn député la am te xamuluma ko yeneen maire yoo xam ne ay réew mi la kon tey ji sa sekk Seck parrainage mbedd mi la war a dem uti bu dee ni Macky sàll yàkkalu ko parce que ci biir parrainage bi am na lu ci am mooy tey ji bu la neexee ci say député nga jox leen consigne pour ñu ne nit mais bu boobaa dil bi day leer deal bi day leer ni Macky ak Idi réeroowul ñu ànd bu dee ni waa Benno ñoo pare ne Idi ba mu nekk candidat rawatina seen i député loolu mun na jur mbir loolu tax fi ñu yóbbu ci wàllu démocratie moo baaxul boo xoolee ci titre bi ma titré pour def lii bi mooy Sonko du Karim mais aussi du xalifa lu tax ma ne du Khalifa du Karim ñu bari dañ naan moom ci kaay la bokk mais mënul bokk ak ñoom kaa ñii da leen jiiñ ñi danoo foog alalu réew mi ban condamné leen ak anam bu leen mën a condamné da leen a tooñ tooñ ñu leen da leen jaay doole jaay ñu leen doole parce que man ni ñu tëjee Karim Wade ak CREI bi nga ko jaaralee ànduma ci Khalifa Sall li nga ko jiiñ ci mbiri caisse d'avance man ànduma ci mais ñooñu boo leen bëgg a méngale ak sonk da ngay juum parce que Sonko sàccul alalu réew mi kenn ju juñu ko ni yaa fob dërëmu réew mi Sonko danoo xëy dax ko ci administration mi ñafe-ñafe ba ñëw élection présidentielle 2019 am ci dayo bu am solo nit ñi yaakaar ko yaakaar googu ñu ko yaakaar ban jàpp woon ni candidat réseaux sociaux la wala waa mbedd wala ñi xamul dara mais mu dem ba doon nit ku sérieux ci wàllu politique koo xam ne tey ji mënoo dem di ko wan ginnaaw ñu commencé di ko faqasal indi ko mbiri mbiri aji sarr indil ko mbiri aji sarr biñ ko indilee mbiri aji sarr tey jii ñu dem ba ne violé wul menacé wul kenn de mort ñu indi corruption de la jeunesse corruption de la jeunesse boo xam ne ñu ne dañ ko jugé par contumace contumace boobu xam ne ki ñuy jugé ma nga ca këram tëdd xam nañ fu mu dëkk contimence kay ki ñu xamul fu mu dëkk lañ koy jugé léegi yàlla dogal ñu dugg ci njombe yoo xam ne xamatu nuñ ci génne parce que li ñuy faral di wax naan ki lijjanti yaa ngi lijjal di lijjanti pour pour tëj ko ba mu jël la jël lépp tey ji mu doon ab guta goo xam ne kenn xamul fu doon même jugement bi sax dañ bu dee nit ki dafa dem contumace mais contimence boobu bu ko demee kenn xamul fu mu ne dañ naan kër gi mu mujj dëkk fa lañ koy affiché mais kii moom mi ngi ci réew mi tukkiwul demul fenn te xam na fi mu dëkk kon kooku jugé ko par contimence ci lan lañ koy teg kon dañoo dugal ci wàllu yoon loo xam ne problème la léegi nag waa jooju tey jii ñu ne mbiri Mame Mbaye Niang ne mun na ko gàllankoor ba tey jii mbir moom jeexagul. te bu ñu yemoon ci atte bu njëkk ba li maître Olivier Sur di avocat Mame may Niang waxoon mooy du tee Sonko doon candidat ci élection maanaam daan bi nga ko daan après ñu def appel ne daan ko six mois teg ci yoo xam ne kenn xamul mu doon ba tey jii mu jur ab guta mais mbir moomu procédure yi jeexagul ñi ngi koy topp ba tey kon tey jii bu dee ni condamné gul la te atte bi daanewagul mais kon tey jii yow ba tey jii candidat nga kon situation bi ñuy dugal Sonko bëgg ci dugal la. Karim bëgg ci dugal Khalifa bëgg leen a def dans le même du nu benn bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër benn bi Sonko bokkul ak ñoom lu tax mu wute ak ñoom mais Karim Wade bi ñu koy tëj ci kaso bi xat damul xat damul gisoo déggoo xat damul coow bari na mais teewul tëj na ko trois ans ko Khalifa Ababacar Sall bi ñu koy tëj ci kaso bi xat damul xat damul même bu dee di dan tooñ te parce que man dama jàpp ne xalifa la nga ko tëj woon du yoon mais xaddamul kii depuis ñaari at mu ngi nii ñi ngi koy topp coowal 94 milliards ca la njëkke woon ñu koy topp ba xëy ne loolu du dara ñu dugg ci mbiri Adji Sarr ba mujjee ci mbiri corruption de la jeunesse yu kenn xamul waajooju tey ji nekk fi di politique ñoom ñi naan waa ji jubul baaxul mënuñu ko tëj ci kaso bi mënuñu ko denc waajoo xam ne dañ du tus lu tax ñamu yamul ak xalifa ak kii xalifa tey jii man sax du ma dikk ci Karim Wade ak PDS ne xalifa tey jii bu dee ni suqaliku na ci wàllu politique Sonko moo tax parce que bi ñuy créé m mais ci la xalifa génn ci bayra Sonko lañu wekku ci ak ci barkeem ba egg fi ñu egg wàllu politique mais avant coowal Sonko mais xalifa ñu bari dañ doon laaj lan lay noppi ak lu tax waxul ah dañ lay laaj lu tax lu tax waxul ba tey jii mbir mi ñëw mu raaxaloo ci fii man dégg naa fi xalifa Sall mu dem ci ay ci ci bërëb. ne bu nu mësaana def caravane wala ñuy wër dëkk bi mais bu nu eggee ci dëkk xale yi Sonko la ñuy laaj même ñoom bu naree jug Sonko sax day mujj na leen jug leen wax ak xale yi ñu ni ko yow la xale yi di wër ñoom ñoo ko doon waxal seen bopp ñoom ñoo ko nangu li mu doon lu waaye nangu woon daaw nag bu ko bañee ren pexem dafa jubul wala ab pexe dugg ci boo xam ne ñun yëguñu ko kon tey jii kuy yemale xalifa sàll ak Sonko naan ñoo bokk ay cas ci assemblée yaa ngi nax sa bopp. Sonko ba tey jii candidat la ndaxte gisaguñu fu ñu ko daaneelu candidat Karim Wade tamit la même chose <coughs> situation ak bu xalifa bokkul teg ci lu tax bokkul mooy Sonko ñu bari dañ naan amul expérience ci élection mais en 2019 jamono ji Khalifa bokkul Karim bokkul mais Sonko dafa am expérience ci atum 2019 kon 2024 am na lu mu leen ëppale Khalifa ban election présidentielle la mos a nekk candidat mosul nekk candidat ci élection présidentielle Karim Wade mosul nekk candidat ci élection présidentielle génn na réew mi dem yoonam xalifa tëdd ca këram Khalifa erreur yi mu def ci politique moo ko jural fi mu toll tey jii parce que Khalifa am na jamono am na loo xam ne tey jii gagné na ko ci politique bis bi ñu koy bàyyi ci kaso dimanche jooju mbooloo mi toppee xalifa rëbës ba Parcelles Assainies mbooloo moom mosuma ko gis ci ndakaaru waaye mbooloo moom exploité wu ko politiquement alalu ku sàggan nag ku farlu moo koy mujjee Sonko nag Karim Wade dem tëdd fële waa PDS amuñu leader amuñu kenn jamono jooju kan moo fi nekk mooy Ousmane Sonko jàkkaarloog président Macky Sall Idrissa Seck mi ko waroon a sonal ci wàllu communication mais Idrissa Seck dem fekk maki sàll sonk nekk la maître du jeu bi polarisation am mu jàkkaarloog Karim Wade kii di Sonko Macky kon tey ji ñoom ñëpp tey jarul ñi mere Ousmane Sonko nan mere seen bopp ak pexe yi ñu def ci politique Khalifa toog ga mu toog dóorul fayul attewul xeex tukki ba Karim tukki. na ko noonu Idrissa Seck ma fekki Macky mais terrain bi la nature a horreur du vide Ousmane Sonko nekk fi di ñafe bu jug jotee mu jug bu wax jotee mu wax te askan wi loolu la xaar ci ab leader mooy bu nu amee seen coona mais mu ñu jàpp ci kon kaawam ak kaawu gaa yi bokkul teg ci nag waxuma la kaawam koo xam ne tey <coughs> bi ñuy wax yeewi askan wi. mais ñu bari dañ doon wax na mbooloo la ci wàllu politique mais Yewwi Askan Wi woowu li may wax ni rek sàggan gi xalifa sàggan tey jii Yewwi Askan Wi bi xalifa di nekk ci Yewwi Askan Wi damul dialogue demul fenn mais Yewwi dañ doon wax naan alalu xalifa la parce que moom moo jiitoon conférence des président lépp lu ñuy wax Sonko jiital ko ci mais tey jii Yewwi mënoon na nekk avantage ci wàllu politique ci xalifa Ababacar Sall même bu doon ni Sonko nekkul candidat mais xalifa mënoon na jariñoo Yewwi mais ci wàllu stratégie dafa juum mais nekkoon ci biir Yewwi moo gënoon ci moom jàkkaarloog Macky Sall mais saafantoo ak l'ambition bi muy def ak Macky Sall moo ko jural lool te tey ji Ousmane Sonko war na leen ni du ñoom du ñu dem du ñu toog Yewwi du dem du ñu toog ci Yewwi Yewwi Ousmane Sonko la ak waa Pastef kase bu nu waxalee yàlla. tey jii concert de casserole bi ñu dooroon vingt heures en moins de vingt quatre heures ñu dem vingt heures ba vingt vingt une heure trente presque passé nañ ko mu am succès boo xam ne mosu ko am ci àddina pourtant bi muy ànd ak waa yeewi daan nañ def concert mais daawul toll sax ci niveau bi lan moo indi tey jii waa Pastef def seen concert mu mu jur li mu jur mooy wane ni son ko du yeewi maanaam du yeewi moo ko yóbbu fi mu egg mais fi mu egg patriote yi ñoo ko fa yóbbu. loolu il faut moom tamit mu xam ko jàpp ni nii yeewi askan wi yii mu ne moom Ousmane Sonko munu ko yokk mais munu ko wàññi parce que boo gisee bariwul ay député assemblée élus locaux yi la mu ci waroon am amu ko mais dafa jàppoon ni jikko bi mu yor moom la waa yeewi yor ñi ngi wax ay xalifa Sall ak waaye yeewi mais même ñi toog des ci yeewi nii bari na ñoo xam ne dañuy xalaat ne Ousmane Sonko mun na bañ a doon candidat ñu profité wu électorat wu Pastef ñu jariñoo ko. mais bari na ci ñoo xam ne bu ñu sañoon Ousmane Sonko du nekk kandidaa ci élection yu ñu jëm te Ousmane Sonko dooleem da koy nat ci Ngagne Demba Touré Ngagne Demba Touré xale boo xam ne bu amee 30 ans ci la yam dugg Matam dëkk bi toj bu duggee Grand Yoff dëkk bi toj te loolu lépp ci barke jàmbur la ci barke Ousmane Sonko rek lan la Ngagne Demba Touré amee loolu du lu mu liggéeyal boppam du dara mais ci barke Ousmane Sonko loolu lay wan ni. Ousmane Sonko am na doole loola lay wan ni Ousmane Sonko du Karim parce que Karim bi ñu ko bëggee tëj dañ ko tëj facilement xalifa bi ñu ko bëggee tëj dañ ko tëj facilement mais Ousmane Sonko ñaata at a ngi ñu bëgg ko tëj ñaata at a ngi ñu bëgg ko tëj tëjuñu ko liñ ko bëgg a teg teguñu ko ñaata at a ngi muy dékku loo xam ne tey jii bari nañ ñoo xam ne bu ñu ko doon dékku ci réew mi saalit bari na ñoo xam bu ñu doon dékku ni maanaam tëj la ci biir kër di la xor ñeenal di la tëj ci kaso bi di jàpp seen nit di tëj ci kaso bi di la teg fitna goo xam ne kenn xamul nu mu toll mosoo tàqalikoog sa xel mosoo jànnexe mosoo saalit mais kooku suñu borom am na lu mu la téel kon ñi ne yeneen yow yeneen gaa yi yam doo leen benn waxuma moo leen gën de parce que fii Sénégal lu ne xew na fi mooy ñu fal nit yaakaar ko mu falu ñu gis leneen parce que pouvoir moom beneen affaire la dafa am ay réalité am beneen exercice am leneen ak leneen ki nga yaakaar ne moo fi gën sax mun na fi bañ a gën mais ki nga yaakaar ni du dara sax mun na fekk mu doon dara mais carte gi nan ko joué mu sincère ay Bougane géey mais Sénégal Bougane Gueye war na mën a dem élection ñu xam la lay saf wax dëgg keneen ak keneen mais mënuñu jël rek jeu bi tëj ko comme si le président de la république Macky moo war a tànn ki war a doon élection ak ko warul doon moom ak ay députéem te Samba mënta mën kanam mën ginnaawam moom li ko waroon def na ko li mënoon def na ko tey jii bu dee mer day jot ci wàllu politique mais na mere boppam man loolu laa gëm man dama ne Macky Sall bu dee day mere nit ci wàllu politique wala muy xeex ci wàllu politique na mere boppam parce que moo jël temps yëpp jox ko xeex wax naa ko sama chronique bi paase ñu fal ko pour mu defar réew mi mu topp xeex bi rek xalifa Karim Sonko il a perdu beaucoup de temps pour rien di tout beaucoup de temps pour rien di tout tey jii suñu borom nag natt ko ci Sonko mënalu ko tus mënalu ko dara problème bi nag nekk équation ci moom mooy damay dem léegi kalaaf yi bàyyi le problème de Macky c'est ça parce que bu dee Idrissa Seck Macky Sall jëflante na ak moom am na fun jaar ci mbiri chantier wu Thiès ak rôle bi ci Macky Sall doon taxawee jamonoy PDS Idrissa Seck est-ce que baal na ko loolu Karim wàdd li mu dund ci politique ba tax tey jii mu def exil ak li ñu teg baayam yëpp est-ce que baal na ko Macky Sall Khalifa Ababacar Sall ak li ñu ko teg yëpp est-ce que baal na ko Macky Sall Sonko ak li mu dund yëpp est-ce que baal na ko Macky Sall loolu équation la mais bu ko leeroon ne bu demee ginnaawam bandang li ko ci fekk yëpp du ko ci fekk tey jii il a perdu beaucoup de temps tey ji nekk ci course contre la montre boo xam ne kenn xamul fu mu jëm parce que fii ak 7 mois ñu dem élection moo waral ay révision code électoral code de procédure pénale ci assemblée nationale mais yii yëpp mënoon na ko ci bañ fekk parce que ba mu ko waree def defu ko ba mu waree yeewi Sénégalais yi defu ko tey jii problème bi mu njëkk am mooy ci biir parteem ñu bari ñu ngi naan APR kan mooy doon candidat ak kan moo ko doonul ay Amadou Ba ñu leen di xas. ay euh, le gars là kii Diop le professeur Diop mais la ñooñu tey jii kenn leen tooñ tooñ nañ seen bopp mais pour man Macky leen tooñ mooy Dauphina mën nga sax di ko waajal te doo ko wax ci kaw mën nga sax di ko waajal te doo ko wax ci kaw mais dem ba à huit mois des élections nga taxaw ne nekk tuma candidat te jiital Sénégal pendant douze ans léegi ñu war a dem ci élection yoo xam ne préparé woo kenn parce que en six mois mënoo ci wàcc ci base bi dugg ci monde rural bi wax ak sénégalais yi te wax fii programme boo xam ne tey jii sénégalais yëpp dañuy mën a gëm ni tey jii kii fii lañ jëmee même bu waxul woon ni diw mooy sama second mais diw moom waroon nañ ko waajal ba li xew tey jii ci APR ñu naan kan mooy doon candidat ak ku ko doonul mais bu structuré woon partem ba ñu dem ci ay congrès d'investiture parti bi tànnal seen bopp kum tànn dinañ ci ànd mais dem ba jël partage bu tàng bi jox Moustapha Niasse mais Macky Sall lu mënul ci APR lan la Moussa lan la ko Moustapha Niasse di mënal ci partem moom mi kilifa gi yor décret yi yor lépp dem ba partage bu tàng mu pus ko kii di Moustapha Niasse Moustapha Niasse li mënul ci AFP nan la koy mënee ci parti jàpp AFP ngi ab coquille vide la kenn xamatul lu mu doon loolu da des fois problème bi Macky Sall dugal gaayam yi kenn xamul lu mu doon ci àddina dafa am benn baat bu waat Wade doon wax te Cheikh Yérim Seck di ko wax yenn saa yi mooy nguur kenn du ko sànni nguur kenn du ko saraxe mais fii li ñuy sàndeeg lu ñuy saraxe amatu fi te gaay mi danoo manqué de courage léegi nag du ñàkk ni fa leen Macky téele Aliou Ngouille Ndiaye toog na fi ñaari at mook Amadou Ba nekk nu ministre mais jamono jooju waroon nañ mën a liggéey ci politique loo xam ne tey ji bu ñu tollee jamono ji mais ñu mën ko teg parce que politique tamit mbooloo la mais bu ne Amadou Ba ne jami dem ba Jamil Sané ak poulain wu sonk di ko gagné biir Parcelles Assainies Aly Ngouille Ndiaye dem ba El Malick Ndiaye mi di ko dir màgg ca Linguère pourtant ñooñu ay candidat lañ woon yu wóor parce que seen jaar-jaar may na leen ko seen dayo parce que ki nekk na fi ministre de l'intérieur ki ministre affaire étrangères ci nekk na fi ministre des finances premier ministre nekk fi li ñooñu maanaam seen dayoo mayoon na leen ko mais lan leen liggéey pour mériter ça ak ban courage lan manqué ba teelu ñoo jug fippu dem uti parce que nag Macky Sall waru leen ëpp fulla ji nga Macky Sall ku am fayda la mooy bi xëccoog Abdoulaye Wade en 2007 2008 mais Macky Sall dafa dafa fedd géew dem uti te yaakaar yàlla dinga nguur du lu nit di jox la nit rien ne se donne sur un plateau d'argent du li luy ñëw rek di la ko sarax di la ko jox nguur daa neex kenn du ko maye mais dangay ñafe xeex ci ndimbalu suñu borom nga jël ko mais Macky dafa xeex ba 2012 mu jël réew mi mais toggul woon di xaar fi ko Abdoulaye Wade di joxañ ak fi ko Abdoulaye Wade di jëme mais bu ko toogoon rek naan damay déglu Abdoulaye Wade ba 2012 mën na am du egg fi mu egg mais dafa am courage deful même erreur bi a Seck def en 2007 parce que am na benn jamono ñu naan ko da lay jubaleeg Abdoulaye Macky Sall bañ nekk ci li mu ne ba mu jural ko lu mu jur Amadou Ba ak kii di Aly Ngouille Ndiaye mais am na benn jamono amoon nañu temps politique parce que nekkuñu woon ci gouvernement bi mais bu ñu demee ba seen avenir ñu teg ko ci loxo koo xam ne avenir mu ngi ci ginnaaw mooy Macky Sall bëggatul doon président. parce que président mooy loo xam ne boo ko doonee ban yéene nga amati mënatoo nekk maire mënatoo nekk député mënatoo nekk dara maanaam ku war ñay wàcc ko loo yëg day tuuti moom war na ñay ba war ko wàcc léegi moom moo leen war a tànnal fi ñu jëm loolu problème la moo leen jural tey jii coono bi ñu am ci wàllu politique yëpp te yëpp leen mënta weesu ñoom ñii mooy ñu jël Mohamed Boun Abdallah jonn man bu ma déggee ñu naan Boun Dionne mën na nekk candidat wu mouvance présidentielle wala Benno parce que moom mooy consensus bi mais nga non da nga naan ni amuñu benn ambition parce que man koo xam ne nekk na fii premier ministre gars yi nee na technocrate la mais aussi nit ku fidèle la ci kii di président Macky Sall mais loolu rek doyul. mais sur le plan politique Mahammed Boun Abdallah Dionne à part 2019 bi mu nekk directeur de campagne lan lay tekki ci politique lan lay tekki ci politique ñu wante dëgg man Mahammed jonn gars yi neen liggéeykat la loolu peut-être que ñeneen na koy juger ci côté liggéeyam mais ci côté politique lan lay tekki Mahammed jonn nekk fi premier ministre directeur de campagne mais Mahammed jonn njombe yi mu fi def ci réew mi ci wàllu politique mais Amadou Ba defu ko Aly Ngouille defu ko ab Abdoulaye Daouda Diallo sax dégguma ni def na ko ñi xëccoo ñëpp koo xam ne yaa fi taxaw bu ma juumul ne 57 58 pour cent te boobu résultat yi génnagul nga nekk premier ministre nekk ci nguur gi nga osé mën a def loolu nga osé mën a def loolu te loolu mënoon a jur lu nekk ci réew mi résultat yi génnagul nga sañ a ñëw joxe ko 57 58 résultat yi génn ñu ne li li Mohamed Dionne waxal mu am. cinq candidats lay am xaw ma ñu ñëw am cinq candidats mais ku mel noonu mën nañ ko wóolu ñun ku ñëw taxaw ni man Baye Fallou Macky Sall la double bouton la ñu naan syndrome Russie Medvedev Poutine ci lañ jëm mais loolu ñi koy xalaat bari na mais man ñi xëccoo ci APR yëpp ci laa gën a ñàkk yaakaar ci moom parce que daf ñu fi jural yoo xam ne kenn xamul lu mu doon élection yi jeexagul nga ñëw dugg naan 57 pour cent la ñu mais kooku tey jii buñ ko tegoon ci réew mi ëllëg lan mooy xew parce que am yoo xam ne bu ko xel nangoo ngor da koy bañ li ma koy reproché laay reproché Mimi Touré en 2000 ci élection yi mujj xëy rek jox ay résultat kon Mohamed Dionne ñi naan non candidat consensus ku yarul ku dal la non Sénégal nag danoo gaaw fàtte nit dafi def ay njombeem ba xëy dem ñu xëy bëgguñu ko jaay. noonu tamit la ko fi Amadou Ba defoon en 2017 ndakaaru gi ñu dem ba 3 heures du matin ñu gis ay résultat yoo xam ne kenn xamul fu mu jugee Aly Ngouille njaay bii ñu naan candidat la du candidat mais Aly ngi njaay fii bi mu fi nekk ministre de l'intérieur lan moo xew ci wàllu élection dinaa fexe ba suñuy militant jot seen carte Aly Ngouille Ndiaye ko fi waxoon. maanaam dinaa fexe ba ñi ñuy woteel ñun waaw Macky yow ñu dénk la ministre de l'intérieur na organiser suñu élection ya ngay tànn koy utal carte électeur ak kooku dul utal léegi ñooñu la lanu Macky Sall léegi ñooñu lan ne Macky Sall dinañu ci tànnal kenn pour def ko élection kii candidat ci élection Abdoulaye Daouda Diallo li jëm ci carte d'identité yi ñu yor nii mais ci kan la jóge ak milliards yi dugg ci carte d'identité yi carte yi ñuy wotee tam ànd ak carte électeurs yi bu ñu fàttee ñi ñuy présenté ci APR ñu ne ñii ñoo war a doon ëllëg candidat yi Macky Sall yaakaar ku ne dañ ci am jaar-jaar te am daa am foo jaar ak sénégalais yi pour man Macky Sall dafa préparé wul ay nitam tey ji yow di nga nekk ak sa papa mu xam ne yow mi yaay ndonoom te doo taawam mu bëgg yow ëllëg nga wutu ko day fexe ba defaral la yoon bu baax raxas la ba nga set ba ëllëg du am benn gàkk-gàkk mais ñi ñuy tuddal yépp ku mu ne ci ñoom am na gàkk-gàkk boo xam ne tey jii sénégalais yi mën nañ la ko xoolee ëllëg moom yi mi ci gàkk-gàkk yooyu bokk na ci vote fi sans carte d'identité loolu de sénégalais yi ñi ñuy bëgg a jiite mii ci opposition bi di ci pouvoir bi tey jii pour la première fois dans l'histoire loolu dañ koy gërëmee Macky mooy ñiy dem élection boo xam ne le président sortant du bokk moom mooy organiser élection yi léegi nag ñun ñoo war a am fulla tànn su bu ñu neex du kenn ki ñuy tànnal koo xam ne dañu koy raxasal ba mu set ñëw naan ñu ab yonent la ab wàlluwu la ab xutbu la fële la jóge nan lu bàyyi ñu tànnal suñu bopp bu ñu kenn wax ni diw am na jaar-jaar bi wala bien parce que fulla ji waa Brésil am ba indiwaat lu laa pourtant def na prison jaar na fu ne mais fu la jooju ñun nan ko am waa Brésil lenn rek lañ ci wane mooy mën na tànnal suñu bopp kon ki ñu war a jiite ëllëg président Macky Sall du moom mii moo ñu koy tànnal léegi nag Macky Sall mën a def erreur boo xam ne ci wàllu politique erreur boobu mooy mu jàpp ni li xewoon ci yenn réew yi maanaam moom mën na li xew euh, Russie mën na xew Sénégal mooy Medvedev ak Poutine gis nañ fi Mauritanie li Aziz daj te pourtant dafa foogoon ni bu fa tegee ku mu wóolu bu ñëwaatee day jël nguur ga bu ñëwaatee day jël nguur ga tey jii ka mu jàppoon ni da koy teel nguur gi joxaat ko ko kooku ko tëj ci kaso bi kon mi Mohamed Dionne ak ku mënti doon Macky bu mu jàpp ni war na fi mën a teg nit après deux mille vingt neuf mu ñëw toogaat beneen bi ci topp. Gambie gi Adama Barrow wi la la waxoon waa Gambie président de transition la trois ans quatre ans laay toog ma nga na faax ca nguur ga waa ñoom Ousseynou Daabo danoo jàppoon ni Barrow ab naxa-naxa la boo xam ne da ko fay teg bu toogee ñetti at delloo leen nguur ga ana Ousseynou Daabo ba tey ji mu ngay opposé Gambie moom ak Khalifa Sall kon mbir mi du diw laa fi teg mu nekkal ma fi fii koo fi teg boppam la fi nekkal kon président yi ak moom na xam boppam fi mu ne nii xama lan moo ko dese moom Macky mu fexe ba rafet ci xare bi mooy ñi ci kaso bi yëpp ñi ngi ci war a génnee ñu génnee leen ñu mu ko defee ci Birame Souleye ak El Malick ak ñeneen ñu génnee leen maanaam moom dafa war a defar ëllëgam fexe ba digganteem ak usmaan Sonko yii mu fexe ba nu mu ci rafetee ñi war a doon candidat doon candidat mu fexe ba teg ministre de l'intérieur boo xam ne du doon Antoine Diome Antoine Diome mënul bokk ci mouvance présidentielle ba pare ñi dem élection Macky bokkul mais Macky nanu tànnal ministre bu yor wàllu élection boo xam day maandu réew mi yëpp ànd ci pour man ci dialogue bi fa mu échecgee foofu la le fait que Abdoulaye Wade indiloon ab ministre de l' intérieur boo xam ne dafa maandu Macky ñëw indi ñu ay ministre de l' intérieur yoo xam ne danoo fal far ñu bëgg a organiser élection mais élection bulletin unique mën na ko kon Modou mi ngi yëglu kon élection yi leen rek moo ci mën a am mooy nan ñu bàyyeeg ki ñu bëgg ñu tànn ko ki gën ci réew mi Sénégal tànn ko ak ku mën a doon mais du mag Sall moo fi toog ba mu neex ko mu teg fi ku ko neex loolu sénégalais yi waruñu ci ànd waruñu ci ànd mais aussi tamit di wax leen ni moo di waa Pastef fii damay dégg ñuy wax investiture investiture ak doon président du dara di nga investiture même bu amul leneen mu naam di nga président Gambie bii ñoo Adama Barrow mooy président Gambie tey jii ndakaaru gi la defee prestation de serment ndakaaru la defee prestation de serment teewu ko doon président Gambie kon ñu ñàkk laa investir mënut a tee nga doon candidat wala nga doon président kon mbokk yi di gërëm El moo du di ñaanal Cheikh Bara Ndiaye fa mu ne mu génn fa di ñaanal tamit képp koo xam ne yaa ngi ci kaso bi rek ñu oyofal ba nga génn jéggal la di ñaan ci réew mi jàmm di jéggalu bu baax ci kàddu yi ah, faraluñu kenn contre ñu kenn mais nag. comme sunu liggéey la dañuy def suñuy analyse rek di ñaanal ñëpp jàmm jàmm ak jàmm wasalaam yàlla na ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf